Bonjour, bonsoir, salam alaikum, c'est Mobile TV. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment activer euh, Siri. Vous euh, ñu voyez Siri nag moo nekk euh, benn genre recherche boo xamante da nga koy sant muy def Non, la quoi boo ko activer c'est facile da ngay ñëw ci li nga xamante ne réglage ba ñëwee sa réglage léegi da ngay wàcc ba fi nga xamante ni fi lañ def Siri et recherche boo leen xoolee moom lañ def Siri et recherche fa ngay cliquer après boo fa cliquer léegi da activer li nga xamanteni ni nek ci kaw fi mu def détecter di Siri fofu ngay activer maintenant fa la ñuy beus bës buñ fa bësee dañuy def activer Siri Le buñ défé activer Siri euh, configurer di Siri la wax léegi dañuy def continuer après lim bind ni la wax dañ nan di Siri léegi buñ ñu di Siri automatiquement gis nga ne détecté na la lañuy waxat di Siri envoie un message léegi gis ngeen ni activer na la lañuy waxat waxaat nan di Siri quel temps fait-il aujourd'hui léegi mu détecté ko ok léegi ñu waxaat di Siri lancer un minuteur pour trois minutes euh, léegi mu détecté ko après léegi ñu wax euh, euh, di Siri mettre de la musique léegi détecté na ko c'est comme ça léegi ñu def ok le ngeen ñëwaat ci deuxième bouton bi ngeen def euh, la rete pour siri ngeen activer ko ni lañuy activer siri pour recherche pour loko sante mu mën loko dil defal j'espère que comprendre ngeen astuce bi ñu leen wax ngeen abonné ci sen sen sen mobile tv te activer cloche bi pour bépp vidéo bo xam dinañ ko duggal ngeen mën diko jot facilement te do am ben problème ñu ngi leen di jaajeufal